asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa leen di nuyu di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla li def nii mu gën a avancé ci kanam a kanam a kanam ba ngeen am ci li ngeen bëgg waa seetaan naa épisode 31 bi ba pare waa gis nga laal la gis nga jale ko mi ngi dem seeti ko ñuy waxtaan waxu nit njaay gis nga xam-xam ñuy waxtaan waxu nit njaay man bu doon moom damay dem ma toog. gérer sama jëkkër xam nga gérer sama doom gérer sama liggéey te xam te ne lii du dara boo mbokk warta kese la doon dontu seex nu mu ko defee ñaaw na wante waru woon def la pour man parce que lii nii day yàq wayam day yàq lépp lu mu defoon da koy yàq waaw Maram tamit dafa bëgg Cheikh rek moo tax mu dem di ko seete yooyu noonu xam nga ni su nekkoon di ko xam te ne defante ma ko tax jukkoon na ko seete da koy da koy ma gis nga yéen yu yéen mu ko dara daal lu bon mi ngi naan ay waay mi ngi koy dem seet ko yóbbul ay affaire gis nga maire bi nu mu ko tax la naan ay amoo conseil du loolu de mbëggeel moo nekk loo xam te ne moo doy waar te moom deful dara mooy dara loolu mooy problème am waaw. Cheikh tamit xëy moom tamit topp na bëgg-bëggam topp na xolam tamit parce que li ko laa doon topp ak yooyu xam nga ba dem ba nank ay doo dem doo dem nga liggéey yooyu yëpp tamit moo tax mu jéngu ba takk mais moom tam bëgg na mu tamit Cheikh Cheikh bëgg na Marème bëgg na Lalla waaw kon nag Lalla maa ne moom mu muñ te ne lii du dara bu ko wër rek kese la du na mu dem këram mu géré waaw ñu nekkaat si jàmm kom d'habitude. asalaamaaleykum man la Ba à Saint-Louis waa dama bëggoon wax tuuti rek si la maîtresse d'un homme marié waaw Lalla si kaawu Lalla lay ñëw ndax Lalla Lalla dafa defaroon sagu jigéen ñi te tey dafa sàgg sagu jigéen ñi ndax tey tey képp kuy aawa mere nga Lalla Lalla fa mu waroon demee fa mu waroon dofe moom la dofew fa mu waroon dof dof la daf ndax ñu indil la jigéen ci sa biir néeg nga xam ko dëgg si sa tànk sa jëkkër di ko nga xam ko dëgg sa tànk sa jëkkër takk jabar nga ni da ngay mais laal la mu dul joué na ko continuer dafa continuer ndax tey si tey idol la woon royukaay la woon man dama ko faamoon ndax li mu xam jëkkëram day doxaan mu teg si tànkam jëkkëram indi gel bi ba si biir ne mu teg si tànkam noppi yooyu yëpp te teewul toppatoo jëkkëram carrément wanu ko benn kan woo xam ne si kii xam na ni day doxaan wala kii xam na ni doxaanu deful loolu laal lépp la teg tànkam ma ngay toog too jëkkëram ma ngay def de kon bu mu sàggi sag boobu li mu amoon way gi mu amoon ah wayu aaw bi mu amoon aaw yëpp am ko bu mu ko sàggi laal daal wax dëgg si yàlla mi ngi bëgg a suñu der nag daf daf lu gi matu ko woon moom bu fekkee ni muus la ko jëleet muus mën na ko yóbbu feneen ndax tey si tey fu mu génn bis bu génnee hôpital ñëw daan ne dañ ko takkal wujj mu daf te way la dul fay ba faaw kon mat ko woon laal daal neexoon na ma waaye kontumaat naa ko. salaamaaleykum na ngeen def yéen si jàmm maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ah man nag maa ngi si eh, laala laala nag dof dofloon bi neexoon na lu mu dof doflu noonu moo ko tey moo ko tey. parce que ya ay ay weer xam na ne mu ngi ànd ak euh, merem buuram bi mu ngi ànd ak merem te loolu yëpp mu ko xam moo doomam bi muy def ay palaan di def pour Lalla euh, kii si ñëwee marem si ñëwee loolu yëpp mu ko xam muñ ko si loolu noonu kon nag bu ñëw góor bu ñëwoon tey ne ko takk naa waru koo bett waru koo bett de da waroon a xajal rek na yàgg naa ñëw ñoo bokk nekk si nit bi kay dama gaawatoon a wax rek wasalaam salaamaaleykum sëriñ bi na def yaa ngi si jàmm ñu waaw euh, man analyse bi ma def ci Racky pa boobu muy yërëm pa boobu je crois que ko violé quoi man loolu laa def analyse boobu quoi waaw waaw waaw waaw laa def analyse boobu laa def quoi merci beaucoup. asalaamaaleykum waa maîtresse dama maye maa ngi leen di nuyu dama ñëw na pour wax sama commentaire série bi neex na macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax mais laala yow laala fiir nga de laala fiir nga trop sax yow si ñëwoo mën a gëm nga ne nga ne Cheikh Diagne takk ñaare pour lan Cheikh Diagne takkal takk nga. kontaan naa si bu baax nii kontaan naa si de waaw parce que da nga takk da nga takk Marème dama yàgg bëgg da nga takk Marème waa parce que instant série bi neex na neex na parce que Marème moom sa dof dof luy metti yi arrêté ko danga jug dem sëy sëy bi nga liggéey sa liggéey ba heure bi nga bëgg ko yàq non non yow yow Marème mi ngi la koy def de Marème mi ngi la koy def de laal la mare mi la koy def parce que mare moom instant yi mën naa ko ne mi ngi si ay problème nii mais tamit boo demee nekk foofu di dof dof lu wala nga xaw ma danga nga dof xaw ma nga dof dof la dañ naan dafa takk ñaareel ren mu kii moom mu découragé tamit bàyyi fiir bu metti bi nag si ñëwoom mën a gami de bàyyi ko mu takk am nga droit takk quatre femmes Cheikh Diagne waaw kon nag man damaa kontaan si bu baax li nga takk nii dama see kontaan bu baax. waaw allo. sëñ bi ngeen def yéen nga ci jàmm naka série bi série bi mi ngi neex de bàyyi leen rek ma biram biram moom moo ko tey biram nekk mere naa ko biram moo ko tay biram moom xanaa dañu xooyal jigéen rek def ko ci jox ko mu naan biram biram biram biram toj na fi waa série bi nag neex na trop nag mais benn instant dama yërëm dama yërëm laal la ndax li tax ma yërëm laal la Cheikh Diagne mu def moo tax beneen bi mooy mareem xaritam la woon gis nga lu gën a metti ci àdduna ñu takk la bi nga xam ne dafa xam sa lépp loolu moo gën a metti ci àdduna gis nga mareem lu muy dund kii lu muy dund noonu laal la dafa laal sama xol dafa laal sama xol wallahi dafa laal sama xol trop trop trop góor ñi billaay euh, kii Cheikh Cheikh Diagne na ay war fu mu jëm de xaw ma fan lay fan lay àkkee ji mais lu mu def dara rafetu si dara rafetu si Lalla dama ko yërëm dama ko yërëm yërëm naa ko trop mais yàlla baax na. su ma doon moom a tamit damay jóg ma song ba set solu xam nga bu dee defante rek la ñu defante ko ba mu metti waa man loolu laa gis man pour l'instant mare moom bi safatul kenn kenn mare moom amul xel mare moom lu ñëw si xel bi rek mu def fi mu ne bu ñëwoon bu demoon tey hôpital ba kenn gis ko mu gis laal la mu gën a aggravé waat bi gën a sonalaat euh, lal la ni ni maire bi def rek noonu la Marème benn yoon li ngeen wax dëgg la benn yoon la dem kër yaay Marème ay mbokkam kenn xamul dégg nga bàjjen bi di ko yaay tante ji di ko laaj ne ko ana sa sœur mu ne ko man sama sœur ci xaw ma lan naa ko ba pare Marème daal en tout cas moom jikkoom doyu dara daal jikkoom doyu ñëw na yàq na ménage jàmbur sëy jàmbur mu neexee woon kii ni ñu neexee woon seen si def couple ni mu nexe woon ñëw na tas kër jàmbur lépp man seex la seex euh, laa jox bi daal seex daal laa jox toor bi même loo mënti def lu ne mën ngaa négocier ak sa soxna ba am ni nga bëgg mais doo ne comme dafa may toppalee dafa may lii ah damay def par léegi force boobu muy jaay ak doole boobu mu jaay léegi moo ngi nii indil na ko lii tas na këram njaxase na àddinaam yàq na fi biram moom mooy loolu moom après moom xamoon naa ne moom kii moom joor moom xamoon naa ne fii lay mujj ak birëb boor moom je le xamoon naa ne fii lay mujj ak birëb dootul affaire u ndimbal seen af seen diggante moom affaire u mbëggeel la moom moom lii moom daf ma leer déere début laa waxoon ne gis nga euh, euh, rok yi ki mu yërëmoon si sànce ba papaam la parce que deret dafa foor man xamoon naa bu yàgg papaam la bu yàgg xamoon naan papaam que bu ma ko gisaatee si buntu kër gi daa kii papay rakki te xamoon na xam naa ne ba fa ñu da daal sama xel loolu ma def papay rakki da moom moom papay rakki da euh, Cheikh moom lu moom mooy njaag mënoon naa doxalee neneen lu dul lii waaw même lu ko laala toppale même lu ko laala sonal sonal sonal mënoon na xam neneen lu ko parce que daal la amul suñ ko féetewul ñàkkul dara Cheikh mais waru woon fayee lii laal la waaw boo gis négocier la négocier ba am li nga bëgg moom day dafa jaay ne laal la sonal na ko il faut mu def ko par léegi gis na conséquence bi ko si dugg mi ngi nii këram tas na jabaram a ngi ne tëdd si hôpital xamul lu muy def mu jéeg jaaga daal moom mooy ñàkk ok Marème moom mu xaale ma ko Marème moom mu ko gis xam na ne moom léegi mu ngi nii yàq na diggante jàmbur mu ngi nii fekkoon jigéen bu baax la dina toog seen kër waaw ñu ko fekk seex fekk ko waaye gisuñu benn mbokkam marem moom daal moom mooy loolu daal marem daal mu ngi noonu rek kooku papay rakki la man te le naa ne kooku moom papay rakki la waaw ak joor moom xamoon naa ne seen diggante moom fii lay mujj ndax affaire bu dootul affaire yu ndimbalante affaire yu la waaw Cheikh moom li mu def moom waru koo defe noonu moom mënoon naa négocier waaw ko négocier ba am li mu bëgg daal mais li mu def ni waru ko woon defe man sama gis-gis noonu laa gisee waaw